asalaamaaleykum bi nee na mi ngi leen sant bu baax te di leen gërëm yéen waa seen bi bi ñu wax si Darou Bairé Fall TV nee na ci liggéeyub sëñ bi ngeen di xëy di ci gont nee kon yéen moom sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax a baax nee na murid yeeg jullit yëpp rek nee na ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di yaatalee mbirum sëñ bi nee na di ko yaatalee mbirum lislaam nee na loolu moom ku xam dara ku ne nee na war na koo xool nee na loo bëgg xam ci yoon wi nee na muy lu yees ak lu yàggoon nee na boo ko ciy xool nee na dana koy génne fu mu toll nee na lii ngeen def daal lu amal njariñ am murit la seen bi daal li muy génne nee na lu amal njariñ ab taalibi la nee ndax génnul señ bi nee na loolu sabasu ngeen ñew fi tay nee xol ci si liggéey bii ngeen xam señ bi moko moko sant muy gëna tek nit ñi ci aw yoon rek nee lolo mom moom waral lii tay ji nee xamna ne moom lim bëgg séeréer moom mën na itam nim ko bëggee dina ko defé non loolu ak cant la nee na li ci nekk di njaboot gi li ñuy dénk njaboot gi nee na mooy li leen sëñ bi wax rek nañ ànd akuk dal akub yar akuk tey neen ak xam ni ñuy nekkee ci biir nit ñi nee na xam itam ni ñuy duggee ci ñoom nee na ndax seerafalkat nee na fu mu toll Serigne Touba di ko liggéeyloo nee na du ko liggéey loolu lenn loo xam ne si nii da am lu ko naqari nee nam ko bëggee rek nee na noonee la koy defee nee na te yéen ba ngeen tàmbalee liggéey bi ba tey nee na ñun bañ tàmbalee liggéey bi ba tey gisuñu ci lenn ay jafe-jafe nee na sëñ bi moom jiitu nañ ci mbooloo mi nee na mel na ne sëñ bi moom jiitu na Baay Faal yi ci xoli taalibe bi yëpp ba fenn fu ñu fi dem fu ne ak nooy rek lañ fay fekk. Aku yar ak i teggin ko tak koo ci taxawal rek wax ko li bi bëgg da koy di nangu muy jigen di gor di mag di ndaw nee boy booy bobak boobaak léegi nee na dajewoo fekk kenn koo xam ne si dañ koo def lo xam waruñu koo def nee na ab liggéey nag bu jugee sàkkaa kër seerafal gii lépp ay bëgg cee raaxaloo def ci loo xam ne si nii bokku ci waaye ñun moom xàmmee nañ leen nee na xam nañ ne kuñ ci dajeel ku ne dinañ xam ne lii ngay def nee na bokkut ak lii ñu ñuy liggéeyloo nee na ndax ñun moom dañuy defar waaye duñ yàq moo waral lii nee na mboolem luñ jàpp lu ne mi ngi nii indi nañ ko nee na kër goo dem ci kër Serap Fall itam lu mel nii ma nga fa. nee na lu taalibe yi jël ci mbooloo mi nee na fob nañ ko indi jox seen jëwriñ nee na lii boo gisee ñu koy wane ci télévision yi nee na dañoo bëgg ñu xam ne lii la sëriñ bi bañ nee na sëriñ bi moom wax na ko ñuy dégg wax na ci télévision bu mag bi wax na ci téléphone yu ndaw yi nee na wax na ci réseaux sociaux lépp wax na ci nee na nit ñi itam boobaat léegi ñu ngi wër tayiwuñ nee na ndax bëgg li sëriñ bi bëgg rek nee na moom lañ ko bëggal nee na sëriñ moom li mu bëgg bu ko amee nee na réew mi moom daal di am jàmm nee ndax jàmm rek la bëgg kon nañ ci gën a góorgóorlu bu baax te gën koo fonk te gën koo téye bu baax a baax nee na sant na leen gërëm na leen bu baax a baax nee na ñun suñ bopp nee na ndigal li ñun lañ ko jox nee na kon ñun luñ ci war a def lu ne ñoo ko war a def nee na bu dee ay oto la ñoo war a génne suñuy oto nee na bu dee ay taalibe la nañ soññ taalibe yi nee na xam ne kenn ku ne digël li yow lañ ko jox nee na boo ko téyee noonu rek nee na liñ bëgg dinañ ko mën a def nee na sëriñ be tam mosuñoo jox benn liggéey nee na ba fop alal lam def ko ci war dara am def ko ci nee na danaan Baay Faal yi mi ngoog rek nee ñun nak ñoy def suñu pexey bop ci barkem bu dé tabax la wala muy kër nee wala xelkom gee nee na ba ci xelkom yi ñékkon nekkoon ñun ñëpp ñoko toj ba muy metti gis ngeen señ bi nim ko nim ko nim ko nim ko amé nee da ko joxe rek ne dem leen ci rek ñee ñu daal ci dem fop suñu yëf def ko ci nee na ba tax mu mel nee mu mel tey jii nee na fee ku fa ñëwoon léegi nee na ku fa demoon ci jamono yu njëkk ya nee na di nga xam ne wuute na ak léegi kon ndigal lii tam noonu la mel nee na li ñuy yore nañ ko fopp def ko ci liggéey bi nee na xam nañ sax ñoo ngi ci nee na waaye nañ ci gën a góor bu baax a baax rek nee na lii muy wax nag ay kilifa ma wax. nee na ndaxte bu buñ ko déggee dina leen neex lool nee ndax sëriñ bi liggéey loola ba yeggale jox añ jox la reer jox la ndékki jox la oto jox la xaalis ne la dee ko liggéeyee nee na yow kon liggéeyoo nee na sëriñ bi lay liggéeyloo moo liggéey ab liggéeyam nee na liggéey yim xam te fekk ko dañ naan leen liggéey baa rek lu ci war ñu defee ko noonu bu ñu eggalee na ko mi ngi nii. nee na kon nañ xam loolu nee na buñ ci xaar luñ sëriñ bi jox liñ bu ñu xaar keneen tamit nañ ci nekk rek liñ am néew a bëri nañ ko ci def rek nee na teewut sëñ bi dañuy dimbali ba mu mel ni mu war a mel nee na ñun ñii saa buñ xëyee ci lañu xëy di ci gont nee na oto bii fi nekk nga xam ne oto sëriñ Seex jëmb woon nga xam ne ab barkeelu la ca la ko jëlee nee na liggéey bii ci la ko def bu xeye mooy yob mbooloo mi ak auto yi ci kër gi nek ci liggéey bi neena budé bu dee gasoil wala essence neena lool lepp señ sëñ ko ciy def neena ndax bëgg li señ bi bëgg mo am rek neena nga xamné ne bi bi yob yóbbu mi nga xamné ne auto señ cheikh jëm bi da ko wutoon ngir liggéey señ Tuubaa neena mo waral mu jox ñuko ci liggéey bi neena bëgg ñukoy koy lepp yomb rek kon nee na loolu rek lañ doon dénk nañ ci gën a jàpp bu baax a baax gën koo téye bu baax gën koo fonk nee na bu ci kenn xaar kenn nee na kenn ku ne daal jàppal ne ndigal li la ko Cheikh Rafal jox nee na muy góor muy jigéen jàppal ne ndigal li nee na Serigne Touba la ko Cheikh Rafal jox nee na Cheikh jox la ko nee na boo ko defee noonu rek dina woyof ci yow nee na buñ ci tàyyi nag nañ jàpp rek nee na fi ne mel na na set na mi ngi gën a set. nee na waaye buñ tàyyi rek nee na lu mu gën a dox rek nee na dina gën a baax nee na sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax nee na yàlla na saa borom yokk fan yi defal leen ak wér nee na ñu fexe ba sëriñ bi lim bëgg mu am ko ni mu ko bëggee barkeb sëriñ bi nee na ñaan moom daa mënta ñàkk waaye ñun moom dañu ko am nee na sëriñ moom dina am li muy ñaan li bëgg ci mbooloo mi dina ko am incha allah nee na kon ñu gën a jàpp bu baax a baax rek. nee mom dal buñ xulo buñ xex buñ xasse nee kuñu saga timit nañ mun ni way man def tam nañ am li señ bëgg rek nee ndax ndax seerafaal kat luna na dégg na ko ba yalla may ko li mu ko may tay ji nee kon nañ xol fofu rek budé saga duñu tak budé am mer la duñu wañi dara nee budé luñu sañ timit duñu wañi dara nee ñun dal nañ am gërëma señ bi rek buñ ko xasse am dal nee ñun dal liñ bëggoon am nañ ko nee yalla ñu ko yalla may rek barke sëriñ bi nee ñu ñaanal sëñ muntaka am yag fi lool ta gëna wër wér ak sëñ Amdi mi nga xamne mo fi nekkal Seex rafal tey jii ndigal li ci mom la wacc nee ak seen jabot gépp ak mbollem Baay Faal ay Baay Faal lañu bala nga doon murit da nga roy Seex rek nee boko roy ni mi doxé royo ko ci lenn do meuna doon murit nee na fokk nga roy ko nee na bu defee sëriñ bi am li bëgg ci yow nee na waaye boo ko royul nee na bëgg leneen itam du sotti de nee na moom daal mooy yoon wi nee na bunti bunti bu mu ubbi mooy yoon wi rek nee na amul yokk amul wàññi nee xanaa yokk ci lu baax nee na lépp lu ci war rek def na ko ci yoon wi li mu war a wax wax na ko li mu war a fàggu fàggu na ko na dara du fi yàqu nag day gën a baax rek nee na ku yàq ku ne ku bëgg a yàq ku ne nee na yow lay topp nee na waaye fii moom dara du fi yàqoo nee na kon na suñu xel dal bu baax a baax nee na ngeen jëf nee na sëriñ bi tam ñu ngi koy sant bu baax nee na moom kat lim ñu may nee na loolu rek la bëggoon nee na bañ a noppalu nee na ab Baay Faal moom am jot nee na sëriñ Muntaxa mii moom mayuñu ko. nee muy ñu fu noppalo nee waxtu wu ne nee mi ngi ñuy jagleel ab liggey nee di ñu sant ay ndigal nee ñun mom loolu rek lañ bëgg nee bëggu ñu leneen nee feek mi ngi liggey lo rek suñu xel di dal ñuy gënd am xewal nee ko xamne len rek ngay diglu len rek mom nga bëgg la nga bëgg di diglu soko gisoko da ngay dal taxaw nee na ku taxaw te ku taxaw nee yalla yàlla ci yalla mussal nee ñun mom nañ doxu ci sëñ bi rek mom mom dimbali nañu ba booba tey nee na amul benn Baay Faal boo am nga jot nee na xamne ci ni timit diglu ngoko way nga ci ay ndigalam na tollu toll gis njariñ lo xamne ci ni joxna la lo xamne ci ni doyna la ci li nga nekkon kon ngeen jëf ci barke maam Cheikh Fall mbokki jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi saar ñëpp di baalu ak ñëpp tey baal ñëpp ak ginnaaw kàddu yi nga xam ne jib na fi muy kàddu yi Serigne Cheikh Fall Assou Ndiaye moom Cheikh Moudou Sa Fall moom maam Cheikh Ibra ñun ñi bokk ci ak njabootam ndigal li wàcc ci nga xam ne ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba moo fi nekkal maam Cheikh Ibra muy si Amdi Fall mu si ko ñu mboolem rakkam yi ak mboolem talibe yi ak mboolem doom yi ak ak ak am di jàmbe yi mooy ndigal li nga xam ne mooy ndigal li war may Touba sëriñ bi ni ñu saytul ko dëkk bi ba lépp loo xam ni lu méngoowut ak diina la lu méngoowut ak eh, ay bëgg-bëggi sëriñ Touba la ñu saafaral ko loolu yi kon loolu moo waral sëriñ bi jëloon kàddu di ñu soññee soññee bi nag ci ñun la ko tàmbalee ñun ñi nga xam ne ñoo di njabootam nee na liggéey bi na sell na ànd ak taalibe na ànd ak dal na ànd ak pas-pas ànd ak xam-xam te bañ a ànd ak xët-xët wala wax ju ñaaw wala jëf ñaaw loolu la ñuy soññi moom la dénk waaye nag dénkuñu ko ñun ñun rek dénk na ko mboolem murit mboolem taalibe mboolem koo xam ne yaa ngi wéy ci ndigal sëriñ bi muy saytu dëkk Touba dëkk dëkkub Touba bii ah, mu mel ni kon ah, yenn ñaawteef yi nga xam ni moom lañ jëlee woon ci biir dëkk bi tam bokk tam bokk li nga xam ne méngoowut ak dëkk bi moo xam kuy naan am njoll la wala koo xam daa yor naka sur noonu loolu ñuy wax am am pon wala leneen di ko tux wala nga yokk di ko jaay di ko jaay ak jënd yooyu yëpp nga dajale woon ko ay ah, yi nga xam ne maanaam lislaam sax da koo tere ci da koo tere ci góor boo uh, suñ bi doo ko tere ndax suñ Muntaxa terewul loo xam ne yàlla terewul ko li mu tere lépp ci Alxuraan la génne ci téere yi uh, góor yàlla yi la génne muy muy muy xam-xam muy loo xam ne diine bëgg ko lislaam bëgg ko ndax góor wu a takku bu seen loolu bokku ci li nga xam ne lislaam may na ko am na ci yenn mbaxane yoo xam it duy teggin am na ci yenn watif yoo xam ne duy teggin kon yooyu yëpp ak colke yi nga xam ne amaana jigéen ji sol tubéy ci biir Tuubaa wala muy sol sol goo xam ne dafa rafet lool ba nga xam ne boo ko gisee da nga naan kii Touba la dëkk wala dëkkul Touba yooyu yëpp dajale nañ ko moo xam ay yére la moo xam euh, lu mu lu mu ci mën di doon rek moo ngi nii moo xam lam yi ñuy bind lam yi ñuy takk di ko seen loxo nga xam ni bokk na ci li nga xam ni mm, rafetul ci ab jullit wax la ak ab murit yooyu yëpp ma nga ne ñu dajale indi ko fii ba ci àll bi ànd ak njaboot sëriñ bi ak taalibi sëriñ bi taal ko ci kanam ñëpp ñu gis ñu xam ni li ñuy liggéey Darou Bairé Fall TV lañ ci àndal li ñuy liggéey nëbbuñ ci làquñ ci ndax maa ngi nii moom ku nëbbu du ko wax lii nag làquwuñ li ñuy jël ci nit ñi moo xam greffage yooyu ñuy wax cheveux naturel la nu mën a toll nu mën a seere ak prix bu ko waaye mën a jënd bu ko solee bi dëkk bi dees na ko jël te bu ko jëlee dees na ko taal liñ ci taal ëpp na fukk liñ taal ay mbaxana ay cap ak yeneen yooyu demee lépp a ngi ne 130 taal nañ ko ci ay cap yoo xam ne ma nga ne ën nañ ko bu fii ci àll bi ñu taal ko wa biñ ko jëlee dañ ko yóbbu suñu kilifa laaj ko ndigal mu jox ñu ndigal daal ñu ndigal leen dem leen ba ci àll ba ngeen taal ko jël suñu oto yi def ci essence ñëw ba taal ko kon ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci ñi ngi koy lancer wala message ñëpp képp képp koo xam ne yaa ngi ci biir Touba nag ay murid ñoo fi nekk moom wax dëgg yàlla liggéey bi bi mu tàmbalee ba léegi ñu ngi ci dajal ñëpp suñu li ñu bëgg li ñu bëgg am na ñoo xam sax ñoo ñoom ñoo ñu gën a bëgg li li li ñu wut ñoom waaw am na ci ñoo xam ne boo day ñëw ay murid lañ loo wax rek loo xam ne ndigal la dañ koy jëfee waaw duñ ci sax teg baat waaw waaye nag loolu moom buñ ko defee rek dimbali ñu dimbali seen bopp waaw ndax ñun moom comme li sëriñ bi bëgg danañ ko def donte suñu bakkan da ciy rot danañ ko def kon kuy dimbali ci loolu ñu jël te ñun jàpp ne ñun ñëpp ay mbir lañ ñoo bokk lenn ñuy def kon nañu ci jàppale ku ku ku ab Baye Fall ñëw ci yow waxal loo xam ne amaanaam bokk na ci tere yi waaye na nga ci jàpp te xam ne ndigal ko ndigal ko tax a waaye bu dul woon ndigal ku nekk yaa ngi ci sa la la ñor ndax ñun bu ñu siñ bi digal amuñ ci leen soxla li ñu siñ bi digal rek lañ am soxla kon nañ ci bàyyi xel bu baax te xam liggéey bi nii la demee lépp liñ ci jël ci waay mi ngi nii taal nañ ko lépp dañ koy taal amul lenn waaw kon kon kon kàddu yaa ngi noonu loolu lañ jubloo leeral Euh, kilifa yi talibé yi ñëpp and nañ ci loolu kon ñi ngi sant mbolo mi di di leen gërëm di ñaan sëriñ ci sëriñ di fal mom sëriñ Mourou Mbend ak ci gëru euh, ñu ci magge Cheikh muntaha mom sëriñ Bassirou mu yagg fi loolu te wér ak mbolam rakami ak mbolam talibé yi wa salaamu alaykum wa rahmatullah la ilaha illallah ngir ngeen di jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fi ci sen sen daru Bairé Fall TV da ngay beus fi ñu bind s'abonner ba noppé nga tek ci kolos bi. aha إلا الله لا إله إلا الله Darou Bayrefal TV, la première scène qui valorise la vie et l'œuvre de Mamsieh Ibrahim